Alib, le goût naturel du lait. Pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. C'est Nico. Orange Money. Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria, avec Orange, Amoul Père Terezo. Niofar. Royal Horizon Baobab, fil free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. UKO Master accrédité Anakuka en audit, management, informatique, sciences politiques, comptabilité finance, droit des affaires. Au oh, Royal, Burundi Adja gis nga kinne mi mooy man maay moom du ma def lu mu yëgul looloo tax ma woo ko mu doog lema ngi nii mu ngoog te soo gisee li tax waa école bi bëgg ñu c'est parce que injustice la ñuy bañ ñun lépp la ñuy lijjanti dañoo bëgg lépp di leer ci gàttal ñun ay activiste lañ sauf ko duñu xuloo duñu xeex dañ koy waxtaanee suñu biir rek looloo tax ñu bëgg la jàppale nga xam na ni yoon bi nga jël du yoon bu baax parce ñun jaaroon nañ ci ñëpp ñu classé ku leen wax dëgg la ñuy bañ tu sais ce qu'on va faire dinañ ànd ak yow ci ay chartes yu leer te bu boobaa li ñu bëgg dinañ ko am. premier bi nak mom moy discrétion. do dox ci daray ñàkk fayda bañ di la ka benen bi nak moy loyauté. boobu mo ci ëpp solo gis nga maag mom ñoo raw maay mota tax kenn mënu dugg suñu diggante dañ ko du sax nangu. et pour finir la confiance. lu ñënd ci mom fanan ci man nga kinne suma neewon ne ci étage bi te dara du la dal sax ma gëm ko. waate ba. Hmm? Bye, yooyu bon léegi daal moo ngi noonu yaay hmm. man mom, d'accord naa ci charte yëpp amul benn problème de toute façon je suis une personne de conscience te mën ngeen ma wóolu yéen ñaar bu kenn xoof. confiance boobu sax mooy baasu lépp te pour ma am suñu biir dañuy wax lépp li nga xam ci nu jaayee. Hmm? cas boobu dafa danse te balaa ma leen koy wax da ngeen di jël seen temps ubbi seen nopp bàyyi seen yaram glissé balaa ngeen di crise cardiaque hey salut. na bon ne vous inquiétez pas dama fi organiser benn événement dama bëgg juste nous réviser avant profil ñoom. parce que yakar na ne bu fi c'est pour se donner la force n'est-ce pas. bon j'ai pas de souci avec ça. ça me va. pour moi clair lu jaay suñu classe moo tax ñoo yor xorom ak saf-safal bi yàlla ñu yàlla may lafal ñu ci cat borom xol yu bone moom iñaan soxor non duñ am. Adja.

ki ne yow jeyna man ak kep ku faxul fen Kati mom mo ci gëna fess dañ ko koy nangul parce que yalla ko ko may depuis Virginie dem France mom mo fi tek tank waye nak dafa am tok faiblesse muy toche man nag mënuma concevoir couple bob fii à papa ak jaaykatu fonde bi sama rebutage la may saf. salaamaaleykum. Eh, méchant moom moo gën a bon si école bi loolu moom ñëpp xam nañ ko mais yenn déception amoureuse yi moom boo ko amee franchement da ngay wàcc ainsi moom dafa sage déggatuñ ko si dara bigi moom foog na ni saafara mooy maye bag saay bu ñëwee ak ay butéelam sonn nañ trop si moom aana moom xamalu ma ko dara école bi ba mu daj moom rek moo ma fi të mook jumelam bi comme yàlla ak yàlli il paraît que dafa am ay rab sax léegi ñun nag loo ñu xamal. dara sama ay partenaire ngeen. Adja gis nga ñun dañoo sëg ay te mënoo fi wax loo xamante ne dégguñu ko ba pare. ay fenkat ngeen. yii loo leen yëg mu siiw. yaay siis kii mooy neuf yéen a raw laalo waxuma ko de waa école bee ko wax nag. seede euh, yàlla vu que suñu ànd bi mënul ñàkk léegi suñu waratee def compte bi sama kër la ñuy daje soit kër kinne suñu demee ba si kanam nag ñu ñëw sa kër ok euh, léegi jiitu ñooy ñëw. waaw waaw te année bi rek lañ ñëw si école bi kii bi fu defoon deux ans fan lañ jël moo jaaxal ñëpp ki lépp la xam rukk rukkaan ñëpp billaay moom ma doy si partenaire de ñàkk ànd ak moom sax dafa wóoru wóoru xam nga ñuy def nañ ko maîtriser ba pare bu ñu xamal dara de gars yi dañ may doon ñaan ma ay jaay fonde amul perma ma ne jaay jaay fonde léegi man su ma ci amul bénéfice yow yaa ci am wam waxuma ko la muy feeñ de allo yow ah. def

loolu maa la ko wax tey xam ko. yaa ngi ma taal su ngeen ma bàyyil ñu bi ngi bàyyil di lo lo ñëw fii jël sama fondé lok ko di ma jéem a jaay ay kii sentiment yi di dawul sama yaram. waaw ah, maa ngi doon jéem nag maa ngi déedéet dox teel bu may wàcc na ma ko jox fa laa yem nag. sama weccat bi c'est que nag jàng bi gaan bu tëree nii fa am yoo jël pour nekk de wala boog. yooyu yan la. da ko soxla wala dafa jar a xam nous quand on révise on prend déjà du lait et c'est amplement suffisant où en étions-nous. non non li ma lay wax nii beneen level la la yóbbu du ay meew de. <laughs> non mais Paco arrête s'il te plaît. ah ah nice comme personne ne prend au sérieux mais yéen des fois du leen dal ngeen jàng ba pare ñu tëgg leen épreuve ngeen fàtte lépp li ngeen jàngoon. si si.

et que vous êtes euh, prêt à attaquer cette euh, période de révision. Alors moi c'est Monsieur Dia, mais vous pouvez m'appeler Abou, c'est mon prénom. Je suis jeune, hein, comme vous. Disons que je suis votre aîné de quelques petites années seulement. Et d'ailleurs c'est pour ça que je souhaite que la communication passe crème entre nous, comme on dit. Voilà, c'est tout à fait cela. Vous dites je, je voulais être bienvenue, monsieur. Ah, Merci, c'est très sympa. Alors, ensemble, nous allons réviser le français, l'anglais et l'histoire géo. D'ailleurs, en réalité, c'est vous qui allez diriger le cours. Moi, je serai là uniquement pour vous aider à combler certaines de vos lacunes, mais on les corrigera tous ensemble, d'accord Ça marche li xew si école bi yëpp pour ma wax la ko day xaw a diis bàyyi ma la koy jox dose par dose. Mm. dalal dalal xool ko. mais de pas trop. s'il vous plaît yéen tamit respectez-nous un peu. vous nous avez pompé l'air durant neuf mois ça suffit. et là il nous reste à peine un mois de révision. est-ce que mën ngeen may tuuti jàmm. école bi nag mi ngi soog a Mais tu sais, l'équation, tu n'es pas obligé de la résoudre comme ça. Donc, comment je dois faire Je t'expliquerai après. Tu dois aller faire une course. Donc, se voit tout à l'heure chez toi Oui, tout à l'heure. Ok. Au revoir. Ok, au revoir. Mais c'est affaire ناخم من الاستبان Bom,

Hum, Ukraine. Ukraine Je suis une troisième guerre mondiale, quoi. Hum. Les États-Unis. Les États-Unis. Comment j'ai pu oublier T'es bête. Ouais, mais affaire yi nii la àdduna en fait danga si ou c'est le dossier des fois si bien Nek, bi <laughs> T'es sûr que ça va Chut. Ce qui va, moi, lui dort. Je suis assis, donc ça ne va pas. <laughs> Qu'est-ce qu'il baratine comme ça En fait, mais ça va. Prochaine fois, je vais porter quelque chose de lourd. <sighs> J'ai j'ai pas le droit d'échouer. Arrête de parler d'échec, tu as pas échoué. Pourquoi tu penses comme ça échoué n'a pas pareil. Si ça continue comme ça, faut que nous sommes 10. Cher Anta, t'abuses. Cher Anta Cher Anta Cher Anta hmm? Hmm? ça va ça va Fabi oui lui ça il doit être fatigué en plus il a raté son épreuve de philo Suis-moi moi, l'autre mon c'est pour ça qu'il est bizarre ouais peut-être qu'il doit être fatigué mais je pense pas qu'il est en train de faire un Un burn-out.